waaw waaw waaw waaw quatrième combat a combat de la soirée Boy Faye moo ñu woon ginnaaw noonu Soura moo jàkkaarloo ñun ba booy quatrième combat de la soirée attention roofoon nañu Boy Faye attention Soura attention Boy Faye sogle na ko jaxabal na ko jeex na ko Boy Faye Soura attention ñu ngi bëree Soura mbër Faye Boy Faye Boy attention, n'y est pas Boy Faye pour attaquer, non Et tu les comme ça, tu as un mec qui est en coach dialogue, mon côté. Soura এখন রেজিস্টার করি যেমন কাজে মাথা নাকি বাবাই কাতিরেন কো মাদলা চরে টেনশন টেকনো কো ওই পাই টেকনো কো ওই পাই সুরা টেনশন দিকে পারে ওয়াও ওরে নেন নুরাই attention tourne ko Boy Faye waaw nañu suura Boy Faye ñu ngi bëre comme ni ma leen ko waxee sama gars yi promoteur ñu ngi jëwal de la de Faray Events organisé la saison 2023 2024 Boy Faye face jëli bi rëy na Soura Mbër daan na Boy Faye jëli na jëli na jëli bi amul benn werante dem na ci Baye Mandiaye dem na ci bay Mandiaye Soura Baye Mandiaye ndeysaan ñoo bokk koñ ñoo bokk koñ ndeysaan Soura bëre daan na jëli bu leer jëli bu amul benn werante Soura daan na Boy Faye ndeysaan Boy Faye jàmbaar la Boy Faye jàmbaar la ndeysaan siisu na ay waay rakk ji bul siisu bul siisu gentleman nga bul siisu ndeysaan siisu na ndeysaan suura daan na ko jël bu rëy jël bu leer jël bu amul benn werante waaw waaw waaw waaw quatrième combat quatrième combat de la soirée Boy Faye moo ñu woon ginnaaw noonu Soura moo jàkkaarloo ñun ba mooy quatrième combat de la soirée attention roofoon nañu Boy Faye attention Soura attention Boy Faye sogle na ko ñu ngi bëre Soura mbër fata Boy Faye attention Boy Faye ñëw attention ñu ngi bëre Boy Faye bu attaque na Ekini kamsa tasanda ne kile san kuti jalo moko toko te. Sura. Ekoni terkoni nyamun kaza mata ne ke. Bobai katirim komat na sura attention tekhniko. Boy boy tekhniko. Boy boy sura attention ni bere. Wow wow. Bere ne nyurei. aca mbay moo may delloo ziar aca teq na ko attention tur nañu suura Boy ñu ngi bëre comme ni ma leen ko waxee sama gars yi tey la samedi 7 octobre promoteur Mimi Dia wala tête de la structure de Faray Events organisé deuxième tournée la saison 2023-2024 Boy jëli bi rëy na jëli bi rëy na Soura Mbeur daan na Boy Faye jëli bi rëy na jëli bi leer na jëli bi amul benn wérante dem na ci Baye Mandiaye dem na ci Baye Mandiaye Soura Baye Mandiaye ndeysaan ñoo bokk koñ ñoo bokk koñ ndeysaan Soura bëre na bëre bi daan na jëli bu rëy jëli bu leer jëli bu amul benn wérante Soura daan na Boy Faye ndeysaan Boy Faye jàmbaar la Boy Faye jàmbaar la ndeysaan siisu na ay waay rakk ji bul siisu bul siisu gentleman nga bul siisu ndeysaan siisu na ndeysaan suura daan na ko jël bu rëy jël bu leer jël mu amul benn werante